mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax eh, niñ ko amee habitude di def talaata bu jot bu 15h jotee jàpp 16 ñu ànd ak yéen di waxtaanee actualité réewum Sénégal xam ngeen ne ci weeru koor wi yëpp dañu changé woon heure bi doon ko def 14 ndax programme yu changé woon ci Walfadjri waaye comme génn nañ ci koor geek jàmm ak eh, salaam <coughs> dañuy delloo waxtu wi fa mu nekkoon maanaam bu 15h jotee ñetti waxtu ci ngoon. ñu ànd di seet di euh, échanger kon euh, ci actualité réewum Sénégal euh, di ci profito sax di leen wax déwénati ak fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen baalu àq bu baax te di leen baal àq di ñaan yàlla suñu borom mu boole ñun ñëpp baal te lépp lu ñu jaamu ci weeru koor gi yàlla na ko yàlla nangu lépp lu ñu ci def tamit safaan mbaa ab rëcc rëcc yàlla jéggal ñu ko. noonu laa ciy profité sax tey nag particulièrement di déwénati sama ay grand yi bopp ah yoo xam ne euh, ñoom it dañ may dañuy topp à chaque fois ci waxtaan wi bokk na ci ku ci mel ne Ali Bandel Niang ma nga ca maatam euh, Abou Kane ma nga ca Podor mais également euh, Ama Dieng ma nga ca Louga ñii ay journalistes lañ mais sama ay grand yu doy waar lañ ñoom di nuyu également sama yeneen grand yoo xam ne ñoom. Euh, dañoo sage trop euh, muy ku mel ne Jérôme Diouf euh, Abdoulaye Dabo Malaye Diop mais également doyen baaxum ak ak sax Babacar Diagne suñu xarit ah, président Babacar Diagne bu CNRA. nga xam ne moom euh, suñu suñu nit la suñu mag la suñu lépp la euh, jalte jalte yi doxoon ci diggante euh, CNRA ak Walfadjri bari woon na lu mu indi ay ñagas ñagas ci diggante bi waaye teewul respect ak ciir bi ñu ko joxoon moom lañ ko jox ba léegi en tout cas ñi ngi nuyu ñëpp ak fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew yëg leen ne ni ngeen di àndee ak ñun nii lu ñu yëg la ñun lu lu rëy la ci ñun. Euh, parce que di waxtaane actualité réewum Sénégal ay nit ñu baree baree baree bari ñoo xam ak ñoo xamul nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew bàyyi seen ay yitte ñëw toog di bokk ak yow waxtaan woowule euh, lu rëy la ci ci ñun leneen li également moo di ne lu ma seetlu man mooy à chaque fois que euh, fii nga xam ne fi lañ bokk di liggéeye muy Walfadjri benn jafe-jafe dal ci kër gi walla mu dal ci kenn ci kër gi da ngay gis ne e, mbokk yooyu ma tudd léegi ak ñu mel na ñoom nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew da leen di jaral ñuy def seen yitte yëpp si di nemmeeku fan lañ tollu mbaa mbir yaa ngay jëm kanam ku ci nekk di woote di nemmeeku di def ay ñaan ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di sant également ñëpp ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ ne ci réewum Sénégal mi rawatina ci ñi nga xam ne ay euh, sëriñ daara lañ nga xam ne dañoo yor ay daara di di di jàngale euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen ni nuyu bu baax di leen ziar je crois que j'ai euh, c'est bon ok alors j'espère que c'est bon alors micro la fàttee taal c'est vrai que je ne suis mais bon ñu continuer donc maa ngi doon wax ne Euh, cant gu ñu xam ne amel nañ ko kilifa diine yi ci réew mi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo yor gore Sénégal yi di def seen bopp yi xam-xam mu ñu tuddee ay sëriñ daara man parfois dama ciy am ñoo xam ne dañu may woo. Euh, dañuy wax ak yow ba dangay am sax euh, da ngay am tuuti euh, tuuti kersa parce que da nga naan ñii lan nga leen defal lu war a tax ñu am yitte yi ci yitte ju toll nii ci yow ci Walfadjri ak ni muy doxee ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ak fu ñu mën a nekk nag ci biir réew mi nañ yëg ne seen ay ñaan seen ay nuyoo lépp agsi na ci ñun te képp koo ci xam ne mën nañoo fexe gisee ak moom it incha allah dinañ ko def. képp kuñ ci mën a jàkk jokkool ci téléphone wala yu demee noonu waxtaan ak moom aussi ca sant ko gërëm ko dinañ ko def ñu ñin ko ci mënul aussi parce que euh, mënuñu koo def ak ñëpp ñuy profité ci moment bii nga xam ne moom lañu am pour di leen sant di leen gërëm euh, di leen wax ne lépp lu ñu ñaanal rek ci lu baax yàlla na yàlla def euh, ñu bokk ko alors tey soo xoolee li nga xam ne moom la faatu tànn bind ko ci écran bi te ma jàkkaarloog moom dafa bind Coro Mandela journaliste enceinte de sept mois envoyé en prison muy kon euh, kenn ci ñun di soxna Coro mi nga xam ne fii la nekk ci Walfadjri nga xam ne euh, keroog bi ñuy jeexal koor gi lañ ko tegoon loxo ba léegi nii mi ngi ci kaso di ci gën a doy waar nag mooy yaramam dafa sutante te dinaa ci ñëw léegi waaye dinañ waxtaan également ci benn appel boo xam ne président Macky Sall moo ko def Euh, tudde ko appel au dialogue wax ne gars yi daal ñëw ñu waxtaan ak moom danañ ci waxtaan waxtaan également ci mbirum Idrissa Seck ak président Macky Sall seen bopp parce que ñu bari nee nañ euh, ñaar ñi réeroowuñ ci dara li ñu nekk nii ay combine la ay deal la mais dinañ ci def jàngat balay booba kon dama bëggoon ñu taxaw tuuti faatu ci mbiru Thioro euh, mi nga xam ne kenn la ci ñun te li nga xam ne moom lay wax ci moom nii su daloon beneen jigéen budul moom it xaw ma ko xamuma waaye ay mbiram ma xam ci li ma xam ci mbirum Coro même position bi laa ci am li ma bëgg a wax foofu moo di ne euh, Coro Maxu Mandela noonu lañ ko gëna a miine di ko woowee citoyenne sénégalaise la di xale bu tuuti maanaam euh, loolu wax xale bu xonq coy alors li ma bëgg a wax mooy su fekkee da nga nekk citoyenne sénégalaise su fekkee ne da nga am jafe-jafe ak yoon jafe-jafe ak yoon kenn mënul ne la bu la yoon topp bu la yoon woo te loolu def naa kenn mënu ko reprocher Walfadjri à chaque fois kenn ci ñun am benn jafe-jafe bu gën a ndaw ak yoon ñun ci suñu bopp ñun ñooy jël suñu ay disposition su waree ànd ak ay avocat mu ànd ak ay avocat dem wujj yoon parce que dañuy jàpp ne noonu la réew di doxee loolu la ñu gëm dal na fi maam Biram Waaj avant maam Biram Waaj dal na fi Sidi Lamine Niass ci boppam ci nguuru Macky Sall gi bi muy doon yees dañ koy fàtte lu bari Sidi Lamine Niass fii lañ ko fi convoqué yóbbu ko section de recherche bii ci Colobane keroog bi muy dem benn drap ju bleu la sol d'ailleurs marche euh, sitting bi ñu fi defoon pour demander la libération de Pape Ndiaye drap jooju Sidi Lamine soloon bi muy dem di wuy ji. section de recherche daraa jooju la Abdallah soloon comme ba xam jël seetlu ko ko même même dara bi moom la Abdallah sol bi Sidy Lamine soloon moom la Abdallah sol keroog Abdallah Niass muy euh, euh, doom ci Sidy Lamine nekk fii ci kër gi ak ñun keroog euh, Sidy Lamine bi muy dem Pierre Edouard Faye mi moo ko doon interroger fii ci buntu wal Walfadjri muy tari asiru bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba mu demee daraam jooju moom Sidy Lamine ñas dañ ko simmi teg ko fële mu fanaan ci karo yi loolu ci nguuru Macky sàll gii la xewee pour wax le lii di xew ci Walfadjri di lu bees comme dal na Sidy Lamine euh, gisuma keneen ku ne ci kër gi koo xam ne mën nga cee mucc mais li tax mbirum coro man mu sensible euh, trop si man ba su ma siy wax duma ci ànd ak sama sago parfois mooy mbir a ngi nii moo xam ne dama ko suivre début ba ba ca fi mu toll ci nii bi ñu jàppee. Euh, Papa Ndiaye nekk kenn ci ñun même taxawaay bi lañ ci amoon parce que dañu jàpp ne ñoom ñëpp ñun ñoo leen jaboote ak lu leen mënti topp ci àdduna suñu responsabilité mooy taxaw ak ñoom luñ ci mën mais kenn mësul dégg ci mbirum Pape njaay kenn ci ñun wax ci ba dëndam jóg wala xolam jóg pourquoi parce que dañoo jàpp ne Pape nit la ku ñeme fi mu nekk. xam fi mu jëm amul lu muy ragal mën na supporter luñ ko mënti teg te mu jàpp ne du du yoon mën na ko supporter même si man mi dem ba Sébi Kotaan Sébi Ponti fekk ko ci prison ba mu nekk xam naa ne prison moom lu la ci mënti wax toog fa neexul ci kenn ak koo mënti doon nag prison neexul ci yow mais Pape mu ngi ak santeem alhamdulilahi rabbil alamin euh, góor la goo xam ne également Euh, dama koy wax ne benn défaut laa ko xamal mooy dafa fit donc jàmbaar la en fait la différence entre Pape Ndiaye ak coro moo di ne coro mii dañ ko cité ci benn affaire bu tudd topp kaa man sax après laa laajte pour xam lan mooy topp kaa gi demee noonu ñu expliqué ma ko keroog bi biñ ko euh, woowee téléphone ne ko na wuy ji exactement euh, merci beaucoup Diène dara ji moom la Sidi Lamine Niass sol keroog bi nga xamee ne xaw ma lu mu waxati woon ci Macky Sall am na je ne sais plus lan la waxoon ci Macky Sall gars yi convoqué ko yóbbu ko section de recherche dara ji la sol keroog bi ñuy sitting fii ci buntu Walfadjri pour demander la libération de Pape Ndiaye euh, no no c'était la non non non bi ñu defoon pour euh, bi ñu coupé suñu signal bi sitting bi ñu defoon bi ñu coupé suñu signal bi dara ji la Abdallah sol moo tax keroog bu ma ko gisee sama yaram yëpp dafa daw parce que dama ne. mais euh, c'est extraordinaire parce que drap bi Sidy Lamine Niass sol fii photo bi ma jàkkaar lool bi mu ko solee image bi ñu ci garde mooy jàpp gi ñu ko jàpp yóbbu ko similoo ko daraam jooju kilifa gu toll ne moom garde ko section de recherche mi ngi nii photo bii la même drap bi la Abdallah sol keroog xam naa moom la donnoo ci papam bi ñuy bi ñuy def euh, sitting la pour wax un peu que ni lii di dal ci ci Walfadjri ku fi nekk ci ñun ak ñi fi nekkoon en tout cas war nañ ko miin te dinaa ci ñëw détail par détail mais li am solo ci mbirum Thioro euh, moomule mooy bi ñu waxee ne dañ ko woo ci yoon cybercriminalité man mii woo na ma wax ma ko boobu maa ngi nekk fii di def émission bii di keppaar gi li ma ko wax mooy comme dañ laa woo téléphone rek dama jàpp ne du ne du nekk lu garaaw parce que bu doon leneen xëy na du lay indil convocation dara mais dañ la woo téléphone da la wuy sil defal mais fexeel ba booy dem jëlal conseil au euh, de tes avocats ci la woo maître Moussa Sarr wootu woo maître Abdi Naar Ndiaye ñu wax ñu xelal ko ñoom it ne ko bu xëyee soo mu dem wuy ji ñun li ñu war ci yu mel noonu mooy souvent man damay anticiper anticiper mooy seet avocat bu ma xam wala magistrat bu ma xam wala alkaati bu ma xam non pas pour jéem a influencer quoi que ce soit mais jéem a xam au moins ki ñu woo ci ñun lan la kes ce qui se passe bañ woo ko noonu lañ ko defee keroog te Pape Sané doy na ci doy na ci seede ñu jël le lendemain exactement Thioro dem wuy ji cybercriminalité jéen euh, audition boobu ñuy wax te am ab journal bu ko bind luñ fa bind ne coro moo ko wax mën ngaa jàpp ne du dëgg parce que nekkul woon ci état boo xam ne mën na répondre à une quelconque question en tout cas pas sur une longue durée te moom Coro bi nga xamee ne jigéen wérul la keroog bi ñu koy déglu moom ci boppam parce que jigéen moo xam yaramam dafa sentir ne li mu ëmb ci biiram yàlla na ko yàlla muccal ak jàmm dafa sentir ne dafay pousser je ne ba xam nga li ma bëgg a wax maanaam dafa mel ne xale bi ni ci biiram stress bi nga xam ne moo jàpp yaay ji dafa tax muy réagir mel ni ku bëgg a génn. ci la audition ba dakke keroog man bi ma yeewoo jël sama téléphone euh, gis ay appelu coro yu bari ak boroom këram yàlla xam na ne tiitaange bi ma amoon mooy mbaa placé wuñ ko en garde à ma woo ko jot boîte vocale ma woo Pape Sané mu ne ma normalement audition war naa jeex et je pense que gardé wuñ ko ci laa woowee ci téléphone Salma Ibrahima fal parce que xamoon naa ne ñoom ñaar ñooy nekk souvent moo ko woowee moom Salma mu ne ma. Euh, Coro bàyyi nañ ko mu ngi nii di ñibbi ñu ngi ci oto mën naa la ko sax paas bu paas ma ko je lui ai parlé ñu waxtaan et je savais que boobu déjà man j'avais des craintes parce que nag du ma jigéen du ma sage-femme du ma gynécologue mais jéen mën ak yow yëpp am nañ ay soxna bu suñu soxna nekkee en état de grossesse <laughs> xam nañ li ci xew xam nañ à près lan moo ci xew ma ne ko d'accord comme bàyyi nañ la nga ñibbi sa kër. xel man na dal mu ne ma waaye nee nañ ma naa wut certificat médical pour que boo lëggee buñ ma soxlawaatee woo ma du jar man may dem sama avocat mooy dem yóbbu certificat médical ni leen kii nekkul dans des conditions ñëw wuy si ma ne ko kon buñ ko wàcc nañ ko gaaw def ci la wutee effectivement certificat médical le lendemain ci li ma boroom këram nettali il faut ma ñëwaat ci détails yi parce que ça me semble important euh, ñu xëy suba woo boroom këram ne leen euh, dañu bëgg a xam fu mu dëkk parce que dañuy indi dañuy indil coro convocation borom këram ne leen mën naa ko jëw jël si comme ça ça vous évitera déplacement beeg yu demee noonu mën naa leen sax indil këyit yi nga xam ne moom la médecin bi bind ne na noppalu parce que yooyu il faut que nga jigéen ji li ñu koy wax mooy bu tollee foofu ak le stress ak yooyu muy noppalu loolu moo tax sax d'ailleurs yenn femmes yi bu ñu nekkee en état de grossesse. bu ñu tollee ci yenn mois yi duñ xaar sax congé de maternité dañ leen defal disponibilité pour ñu toog seen kër noppalu dañ leen di bañloo ñuy yéeg ci escalier di leen bañloo ñuy ñu ñuy taxaw lu yàgg ak yu demee noonu li may wax lu ma xam la nag wax dëgg yàlla. alors bi loolu amee euh, jëkkër ji accepté expliqué leen fan la nekk pour ñu indil ko convocation bi ñu ñëwee ne ko na sol yéreem dañ koy yóbbu na sol yéreem dañ koy yóbbu. pourquoi ñu ko yóbbu procureur nee nañ ko andi lii lañ ci am alors jafe-jafe bi ngay njëkk am mooy eh, Coro ñi ngi wax ne jigéen wérul la effectivement jigéen wérul la mais dafa yor xale ci këram boo xam ne ci ay ñetti at lay tool doomam mu assister à mu assister ci spectacle boobu xam nga xale boobu déjà il est traumatisé par ce qu'elle vit assister ci spectacle boobu mooy lan. mooy gis yaayam mu nekk dans un état boo xam ne taxawal boppam wala doxal boppam sax munu ko ay alkaati ñëw di ko jël si pour yóbbu ko boroom këram nee na ma oto bi alkaati yi àndi woon mënu sax yéeg moom moo proposé ne mën na ko yóbbu ak oto ñu jàggat jagatee ko dugal ci otom yóbbu biñ demee euh, nu ñu koy waxee cybercriminalité man bi ñu egsee cybercriminalité bëgg ko yéegee cinquième étage te ñu ne foofu ascenseur yi ak doxu la xaw ma nuñ ko nuñ ko waxee ci instant boobu jéen yàlla mi dara tawul man ci laa jot l' avocat maître Abdinaar Ndiaye mu ne ma Moustapha man maa ngi nii dama doon jàppante ak alkaati yi parce que liñ bëgg a def loo coro mënta nekk ma ne qu'est-ce qui se passe mu ne ma dañ ko bëgg yéege ci cinquième étage dans son état ma ne ko loolu moom xel xalaatu ko ci laa jóge man sotti ndox sama kaw ne. nañu nañu génn nag xoole lu xew ci diggante bi lañ ma woo ne ma finalement yóbbu nañ ko parquet donc jugee na cybercriminalité yóbbu nañ ko mu war a gisi procureur ma ne ah xëy na su ko dégloo dans son état dinañ trouver moyen bàyyi ko mu ñibbi këram bañ soxla woo ko woo ko parce que ñoom euh, encore une fois duñu ay médecin duñu ay gynéco duñu ay sage-femme mais ku gis nit xam ne kii mu ngi ci état bu ko man a surtout jigéen wérul bi loolu amee ñu toog di xaar jéen ba booru dix huit heures jëm dix neuf heures parce que boobu ñu ngi waaj ñu ngi waaj dog man euh, li tax heures yi duma ci juum mooy dama toog fi may ndogoo laa toog nii ci suuf sama téléphone sonné ma jël ko muy Salma Ibrahima Fall li ma njëkk dégg ci moom mooy dafa commencé di jooy qu'est-ce qui mu ne Moustapha man jaaxle jaaxle naa. ma ne ko lu xew mu ne ma coro lañu indi commissariat plateau mu daanu ma ci profité d'ailleurs di remercier baax femme bi bu nekk plateau mooy commissaire bi je crois que fa la tudd defe naa mooy commissaire bi c'est une femme man wax naa ak moom téléphone euh, une femme vraiment très cool très cool très gentille après bi loolu amee ma ne ko ana coro mu ne ma dafa dañ ko indi mu daanu ne ko daanu mu ne waaw jéen tu imagines femme enceinte daanu ci commissariat te déjà bi ñu ko yóbboo cybercriminalité condition yam fa nekk woon c'était alkaid seen bopp xamoon nañu c'était compliqué pour elle mu daanu foofu ma ne ko comme euh, dog mi ngi jot naa xaar ñu ndog suñ ndog bu julee timis rek on se retrouve au commissariat ma pare jël sama téléphone woo Pape saane comme man ci yu bari ci yooyu moom laa ciy kiiwal ma ne ko pap foo nekk mu ne maa ngi Bel ma ne ko nañ daje commissariat plateau mu ne ma bu ñu dogee on se Diène fi ñuy ndogoo pareeguñu sama téléphone sonné waan ma gis muy borom këru coro dem dama tiit tiit boo xam ne parce que yooyu tu di dis mën nañ la wax lu ne mu ne ma euh, coro finalement dañ ko yóbbu comme euh, comment ça s'appelle hôpital principal Diène bi ma taalee sama oto jëm hôpital principal ku ma xam ci kilifa ci réew mi parce que boo jaaxlee jaaxle nga ministre bu ma xam magistrat bu ma xam avocat bu ma xam woo naa la pour le pour te demander une seule chose soo ci manee lu gë lu toll nii dox ci jéego rek non pour ñu bañ a poursuivre coroog yooyu beneen affaire la parce que man ba léegi le dossier en tant que dugguma ci parce que intéressé mais la sante laay wax pour ñu bañ ko pour poursuivre nga dimbaliñ ci am naa un ami avocat boo xam ne bi ñuy xamante jéen man ak moom di ànd classe su sixième lañ nekk daf ne ma t'inquiète pas man lu ma doon def dinaa ko bàyyi ku ma ci xam dinaa ci wax ak moom ñu jox ma numéro ay kilifa ma woo ku ne ku ne woo naa la te boobu maa ngi ci oto jóge sama kër jëm hôpital principal ñu waxtaan ma am yaakaar lool ne ñooñ ñëpp buñ ci intervenir dinañ xool wér-gu-yaramu coro ak gone gi ne ci biiram parce que Pape Sané wax na ko démb justice affaire doomu aadama la humanité la boo ko ñàkkee dara amatu fa c'est l'humain ki réagi qui agit ñun ñëpp ay ay doomu aadama la yenn saa yi ñu posé acte yoo xam ne da ngay gis ne euh, c'est l'humain bi ne ci ñun bi yàlla moo ñaante ñun mooy jékki-jékki rek réagir ñeen ñi dañuy daanu leer ñeen ñi dóore ay kurpañ ñenn ñi jooy ñeen ñi xaqataay mais c'est l'être humain qui réagit comme sax gis nga bi ma demee keroog hôpital principal man maa nga fa woon Pape Sané ma nga fa woon madame Sow mii suñu nekk suñu service commercial ma nga fa ak ñeneen Euh, ma fekk fa ñaari alkaati ay xale lañ sax de jeunes gens très gentils man ma ñëw ba ci ñoom wax ak ñoom gis médecin bi également teg sama bët coro man maa ko gis parce que boo euh, nettali loo fekk moo gisee sama première réaction mooy kii moom xaw ma nu nu nu justice na a def ak moom mais kaso mënu fa dem parce que je l'ai vu ci noonu comme commissariat wu plateau dañoo nangu woon ay téléphone ñoom Salma Ibrahima Fall ma man ak Pape Sané ñu ne nañ dem commissariat pour jéem a lijjanti ñu delloo leen seen ay téléphone parce xam naa dañu ragaloon ne filmé nañ bi coro daanoog yu demee noonu ci lañ woowee commissaire bi une femme très cool très gentille man xaw ma ko mosuma koo gis mu ne ñu amul problème je vais dire à l'enquêteur mu jox leen téléphone yi jarul ngeen di dem ñun ñu départ. pour dem tëddi nag noppalu le lendemain parce que koor gi souvent ak salon d'honneur ak ak salon d'honneur ak yooyu bala ngay tëdd fajar jot donc da ngay naaje yow le lendemain le premier message que je reçois c'est message de Ouleymane qui me dit Thioro est placé sous mandat de dépôt jéen sa àdduna day tukki quoi parce que da nga naan man ki ma gis démb ci guddi. nan la nan la mën a yeewoo suba ñu yóbbu ko tribunal ba ba mandat de dépôt ci am xel mënu ko nangu nga jógati effectivement elle est placée sous mandat de dépôt ma woo borom këram ne ko dama dégg ne coro dañ ko placé su mandat de dépôt mu ne ma amaguma ci confirmation dégg naa ko rek affaire dafa ma metti xam nga tax mu metti ma mooy borom këram en réalité xëy na mënoon na koo dégg. mais tant que avocat yi waxuñu ko moom day jàpp ne dana yóbbu soxnaam mu ñibbi kër ga mais su ma ko woowee man wax ko ne ko placé nañ ko sous mandat de dépôt tout suite day xam ne waxuma ci ay caaxaan te li ma metti mooy la mauvaise nouvelle bi ma ko jox moom Maxu Mandela xam naa mi ngi may déglu alors mu ne ma de toute façon avocat am avocat wu corom mi ngi ak moom bu ñu génnee rek dina ma wax lan la. ci laa woowee l' avocat maître Abdinar Ndiaye mu ne ma Thioro mi ngi nii mi ngi nii toog mais mënul sax toog lu yàgg parce que état bi mu nekk la te loolu même bi dara xewul nga xam ne coro amul benn stress ñun remarqué woon nañ loolu parce que bi ñuy def salon d'honneur fii boo ko laajtee suñu techniciens yi Charles notamment Charles René Charles Fall moom mi nga xam ne moo doon réaliser émission bi à chaque fois da doon gis ne bu ñu toogee di débat ñun au bout de trente minutes Coro dina jóg tekki micro yi simi dàll yi dox ak tànku neenam génn plateau bi man loolu daf ma doon jaaxal quoi parce que gis naa ko deux ou trois fois mais comme man nit du koy seetlu bu baax après laa laajte ñu ne ma mënul toog lu yàgg parce que état bi mu nekk la après laa ne mais attends yéen yéen ñoom bitee ak ñooñu yéen comme xam ngeen loolu pourquoi ngeen di bàyyi muy continuer on aurait mu ne man non parce que Thioro confiance bi ñu amoon ci moom pour mu remplacer Khady Sylla pendant ce mois de ramadan là moom elle voulait def ko ba mu jeex loolu mooy le courage bi nga xam ne moom la cette dame laa am te courage boobu jéen boo may waxee ak nii moom la cette jeune dame laa am courage boobu nga xam ne moom la doon def émission yi man dama ne moom la garde ba léegi parce que bi may ñëw fii rek matagul waxtu wax naa téléphone ak boroom këram. mu ne ma effectivement gis naa coro tey tey moom borom këram tey la koy soo gis mu ne ma li ko coro wax mooy chambre bi mu nekk nekk na fa ak douze personnes douze personnes une femme enceinte et que elle tient le coup moo tax ma ne jàmbaar la parce que état bi mu nekk ak at yu néew yi mu am ak li ñu li li dal ci kawam ci semaine bi yëpp ñu ne ma elle tient encore le coup dama ne. coro jàmbaar la bu ñu bu ñu yaboo ne jigéen bu man góor te jàmbaar googu man déjà dama ko seetlu woon si moom bi may def ak moom émission petit déj parce que lu mu daan metti metti elle est présente pour faire l'émission le vendredi maa ngi fàttaliku benn bés xam naa ñoom Fatou Diouf fay ak ñoom Cheikh Tidiane dinañ ko fàttaliku man bi may ñëw Walfadjri di ak si euh, Diène dafay dafay dafay taw ba mënuma génn oto bi ma toog il a yi xaw ma kan laa woo ci kër gi mu yónnee ma benn parasol moom laa yéege coro ci taw boobu la fi ñëw yëre yi tooy mu dellu changé ji ko ñëwaat def émission bi donc cette dame là elle courage là te même courage bi ci li ma borom kër wax parce que man gisuma ko depuis keroog ma gis ko hôpital principal ba léegi tegaatuma ko bët moom la yore mais mais jéen jigéenu wérul fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru en tout cas ñi ci ëpp ci ñoom dañu am benn médecin boo xam ne moom moo leen suivre soo leen laajee dañu naan la man clinique sàngam laay dem wala hôpital sàngam laay dem parce que dafa am koo xam ne moom lañu ñu am confiance moom la ñuy dem à chaque fois ñu sentir dara seen yaram kooku moom moo koy sur moo koy gé moo tax ñuy am carnet de santé tey jii coro man l'inquiétude ce qui m'inquiète man mooy sa santé ak la santé de l'enfant bi nga xam ne moom moo ne ci biiram est-ce que médecin ba ko war a suivre am na accès ci moom pour war koo suivre li ma boroom këram wax mooy amu ci accès loolu la ma wax est-ce que en prison jël nañ toutes les dispositions pour mën ko suivre ak des personnes yoo xam ne mën nañ ko xam nañ ko yaakaaruma ko yaakaaruma te bu la ci kenn nax jigéen wérul jigéen wala fa ko tuddee jigéen wérul ça veut dire quoi que ne ñaari fan ñett yu ne biir baa ngay metti ma ngay tëdd ma ngay wiñaaru loolu mooy li am am na jigéen ñoo xam ne yàlla moo leen may benn structure de leur corps boo xam ne seen grossesse mën nañ ci dem ba génn du leen yàqal dara ñu ngay liggéey nañu war a liggéey di def te yooyu jigéen ñi ko yàlla mayoon ñi ko yàlla may mooy surtout suñu mbokk jigéen yi nga xam ne ñoo ne ci àll bi nga xam ne tàmm nañu liggéey bu metti beeg yooyu mais xale yi ndakaar yi ñoom coroog ñu mel na ñoom bu ñu nekkee ci état bu mel noonu day metti ci ñoom il faut venir à Walfadjri pour voir yi fi nekk day metti ci ñoom yow mi seen borom kër sax jéen day mujj da ngay feebar parce que doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg loolu mooy la réalité est-ce que toutes les dispositions yi ñu war a jël jël nañ ko pour cette femme là ñu koy suivre dans les meilleures conditions qui soient dina ma jaaxal trop mu mën a nekk. moo tax encore une fois man dey ba léegi ci loolu laa nekk képp ku ma xam maa ngi koy woo pour xool comment faire pour que cette dame là dellu ci njabootam maintenant nag la justice ñooy fixer lay dellu ci njabootam. dellu ci njabootam ngir santeem ak santé wu xale bi na ci biiram bis bu ko yàlla mayee mu mucc ak jàmm lu ñuy xool ñu koy soog xool loolu dong la du leneen tout le combat que nous menons ñun à commencer par man mi toog c'est le combat pour la santé de coro et la survie de l'enfant qu'elle porte tout le reste on pour man on verra ça après te nag man waxtaan naa ak coro avant muy muy wuy ji waxtaan na ak boroom këram ba tey maa ngi koy wax léegi <laughs> wax nañ démb wax nañ tey te ba léegi coro li mu jàpp gëm ko mooy li ñu ko waxal yépp ba sax bind ko ci journal amu ci lenn loo xam ne moom wax na ko walla def na ko lenn lenn lenn te man dama koy gëm jusqu'à ce qu'on me prouve contraire te Diène li li mette doy waar te xam naa ne coro je lui souhaite beaucoup de courage parce que journaliste la te loolu dina metti ci moom lool mooy lan mooy nekk ci biir kaso yow mënoo wax mënoo bind mënoo weddi sa ay naataangoo yi nga bokkal liggéey nga xam dañuy wax ne la famille c'est la c'est la presse c'est la c'est une famille donc des membres de ta propre famille ñoo lay yàq loolu moo gën a metti dem kaso nekk yow ci conditions yoo xam ne mënoo tontu mënoo bind bu ñu la waxalee mënoo weddi te des membres de ta propre famille ñoom ñooy dem di def loo xam ne li la gën a naqari ñoom ñoo la koy teg loolu dara dara dara dara gënu ko metti te loolu mooy li nga xam ne moom moo dal eh, Coro Maxu Mandela Diène Coro jour bi ñu njëkkee bind ci moom ne dañ ko déglu cybercriminalité mu wax lii am na sax je crois bind nañ coro passe au aveux xaw ma quelque chose comme ça après ñu ne ñu bind Thioro dañ ko convoqué waat le lendemain jéen jour boobu coro elle était liberté jour boobu Thioro téléphone am mi ngi sone jour boobu Thioro téléphone jëkkëram mi ngi sonné donc journaliste bi bind loolu aka yomboon ci moom mu jël téléphone am rek composé numéro coro woo ko ne ko ah ma chère consoeur man kat dama yor benn PV wala dama gis PV police bu ñu wax ne yaa wax nangam wax nangam et que sax dañ la convoqué waat suba est que jot nga convocation su ko defee coro jox la version des faits dara terewu ko nga bind ko après boo ko defee à la yooyu c'est ton travail yoonu kenn newu ci mais au moins coro moment boobu elle était en liberté elle avait son téléphone avec elle soo ko woowee jot ko wala boo ko jëlul nga woo borom këram. jot ko moom mu nekk dans les médias boroom këram nekk dans les médias ça veut dire que ni man journaliste ma doon mënuma umpule numéro coro wala numéro boroom këram te ñoom ñaar koo ci woo baax na soo ko woowee ne ko ah so man ko dama dégg ne sa soxna dañ ko déglu tey wax na lii wax na lii est-ce que mu ne la ah man de sama soxna lii la ma wax nga bind su la waxee ne la ah man de sama soxna kenn convoqué waatu nga ne ah policiers yi kat wax nañ ma ne ma coro dañ ko convoqué wala boog samay source wax nañ ma Thioro dañ ko convoqué suba mais Thioro nee na moom jurul convocation mais lii mooy liggéey journaliste ci li ma ci li yaakaar ah parce que je suis pas censé savoir lépp li xew ci suñu métier bi ñu def bis bu nekk dama ciy jàng mais dama yaakaar ne lii mooy liggéeyu journaliste mais ils ont préféré ne pas le faire c'est leur problème bu ñu demee man wax naa ko benn kilifa moo ma ko wax dama ko laaj mu ne ma bu la ci kenn ndax lépp lu ñu def fii lu ci gën a ndaw dañ yàlla da koy attewaat li ñuy bind nii ak li may wax nii yàlla da koy attewaat donc bu ñu xoolul suñu métier ak règle li nga xam ne sax moom la ñu jàng war ko respecté mais ñu xool suñu borom bi ñu bind xam ne lii ñuy bindal corom Maxu Mandela ak di ko waxal lu mu ci mënti doon dinañ toog ci kanam borom bi layoo ko ak moom te coro dafa wax benn affaire këram la ko wax te boobu mi ngi ci situation bu metti bu metti mu wax boroom këram ne ko ñii liñ ma bindal boobu may sàngoo suuf duma leen ko baal mu ne ñii liñ ma bindal boobu may sàngoo ak suuf duma leen ko baal loolu corom moo ko génne ci gémmiñam te boobu mi ngi ci metti bu méttee méttee métti wax ko boroom këram ça veut dire que ni euh, da lay war rekk niñ ko atteindre waaye nag euh, li ci gën a métteeti jéen mooy dangay toog nga ne Pape Ndiaye disons Sidi Lamine Niass avant Mame Birame Wathie Pape Ndiaye avant ak Pape Ndiaye 2 muy ñaari yoon yu ñu jàppee Pape Ndiaye yóbbu kaso ak Coro Maxu Mandela mii maam biram Wathie ak Pape Mokhtar Diallo ñi nga xam ne dañ leen agressé fii bëccëgu ndara kàmm ñun ci suñu biir ñun ci Walfadjri à commencer par mii ñi nga xam par à commencer par man mii ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñi ngi recevoir. ay menace de mort ak ay saaga lu nekk jën nañu waxante dëgg rek bu ñu naa fekkul réew mi ñu nekk ñii ma tudd ñëpp bu nekkul woon wal fajiri leen dal du leen dal bu nekkul wal fajiri leen dal du leen dal Pape Ndiaye bu nekkul woon wal fajiri du nekk kaso moment bii coro mii la même chose te li may wax ni fi ma ko teg mooy mais am na kenn suñu ay naataangoo yéene ma ko kaso yàlla bu mu fa dem mukk boo xam ne dañu wax bind mu leer naññ ne da doon dawal oto màndi mbëkk nit gaañ ko anamu ma nga këram toog bu nekkoon wal fajiri kooku heure bi mi ngi kaso ma nga këram toog te dañ ne da doon dawal oto màndi mbëkk nit te ba pare yokkal la ci ne récidiviste la récidiviste mooy c'est la première fois mu def ko def na ko defati ko ma nga këram toog soxna si xale bu jigéen bii dem kaso ci loo xam ne dañ ne dafa partagé xaw ma dafa bind xaw ma je ne sais je n'en ci affaire ay euh, topp kaak euh, xawma ma yooyu man yooyu intéressé wu mais li ma gëm mooy su nekkul woon wal fajiri wala muy yor position yi mu yor moom coro bi heure bii du nekk kaso te jën loolu mooy naqari ci xol jën wal fajiri gii ñu nekk mën ak yow ñu fiy liggéeye ki ko taxawal Sidy Lamine Niass doomu Sénégal la juddoo fii ci réewum Sénégal mii am fi ay ndey am fi ay baay jànge fi màgge fi def fi lépp nekk sénégalais au même titre que n'importe quel autre sénégalais ba pare am lu mu amul man yow amoo ko président Macky Sall amu ko mooy moom Sidy Lamine Niass laa bëgg a wax su ko neexoon toog ci sijaada yore kurusam ak kaamilam di laaj àddiya te dañ koy jox wala mu yor ay toolam ami taalibeem ñu ko ñu koy bayal te da koy am looloo gën a yomb fuuf mu ne je par pas saa ça gagnement vais vie ci sama ñaq tijji entreprise de presse di ci xeex di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc nga xam ne Sidy Lamine l'essentiel de sa vie l'essentiel pour ne pas dire toute sa vie Walfadjri la ko déjee li Sidy Lamine daj pour Walfadjri daj ko pour ses propres enfants pour que Walfadjri nekk li mu nekk sénégalais yi di ko jariñoo daju ko pour ses propres enfants kooku noonu li mu daj pour que le président Macky Sall dem au pouvoir bariwul sénégalais yi ko daj pourtant dès que le président Macky dem au pouvoir entreprise de presse bi nga xam ne moom moo subir les premiers assauts du pouvoir de Macky Sall mooy Walfadjri amul beneen su fekkee am na pourquoi parce que Cyril a choisi ne man su ma àndeek nit ba mu dem pale ba dugg damay wàññeeku dem nekk contre pouvoir ça veut pas dire contre le pouvoir mais être un contre pouvoir ñu ne ko du fi amee ba moom mii dem na ci garde à moom Sidy Lamine Niass te kasoom xajoon na ci moom mii bis bii la wuy ji woon alkaati sol garambu bii ma doon tudd sànq moomu Lamine Niass mille décembre 2018 mu jóge fi bàyyi Walfadjri ak ay sénégalais ay sénégalais dong ay doomi sénégalais ñoo xam ne ñii ñu ngi juddoo Louga ñii juddoo Kaolack ñii juddoo Ndakaaru ñii juddoo Casamance ñii juddoo Fouta ñii juddoo Thiès ñii juddoo fu leen neex ñoom ñëpp ñu daje mu ne leen je vous laisse un héritage l'héritage s'appelle le groupe Walfadjri moomu leen ko yéen ak sénégalais yéen yéen a ko bokk bañ naa ko ba bëgguma sama ay doom di ko doon na nekk loo xam ne sénégalais yëpp ko moom. ñi ñooñu ñii 30 ans la ñu am ñii 35 ans ñii 40 ans ñii 45 ans ñii sax amuñu 30 ans <laughs> ñi ci am cinquante ans ñu néew a néew a néew la ces gens la continuent alors euh, on m'apprend qu'il y des agents du commissariat central pour me remettre une convocation pour jeudi 27 avril à 11h moom laa liir nii. que ni dafa am ay agent au commissariat central yoo xam ne ñu ngi fii ci Walfadjri nee nañ man Moustapha Diop naa leen wuy si euh, kañ jeudi à 11h incha allah moom la ma Cheikh Niass di wax nii incha allahu rabi jeudi à 11 dinañ dem wuy si leen ñoom dinañ dem wuy ji leen ñoom agent au commissariat central yooyu. alors li ma doon wax kon mooy Sidy mi Niass moomu ñu bàyyi Walfadjri kon muy entreprise de presse boo xam ne daf ko bàyyee ak. njabootam gi nga xam ne moom lay wax ne mooy sa deuxième famille muy njabootu Walfadjri entreprise de presse boobu ba léegi muy dox ci Sénégal yenn saa yi mu jóg yenn saa mu daanu yenn saa mu jóg yenn saa mu daanu mais teewul ay jafe-jafe kese kese lay dund la question que tu te mooy lan moo tax ces sénégalais la les sénégalais yi nga xam ne ñoom ñu nekk Walfadjri di subir un traitement différent du traitement bi nga xam ne les autres sénégalais. moom la ñuy nekk ci yenn entreprise de presse moom la ñuy subir c'est la grande question que tout le monde se pose moo tax ma ne ku nekk ci Walfadjri na nga préparé wu xam ne mën nañ la convoquer à tout moment comme ni ñu convoqué Moustapha Diop nii convoqué ko Pape Ndiaye avant convoqué ko Mame Birame Wàdd convoqué ko euh, nu mu tudd coro Mokho Mandela ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen loolu euh, lu ñuy lu ñuy xaar la mais li am solo rek mooy encore une fois di ñaan su fekkee mën nañoo ñaan que coro moomu fa mu nekk yàlla na fa génn ci nu mu gën a gaawee loolu dong dong dong dong mooy suñu préoccupation du leneen beneen bi moom laa prévoiroon waxtaane tey mooy appel au dialogue du président Macky Sall président Macky Sall qui appelle au dialogue président de la République wax naa ko waxati ko li ko war ci Sénégal mooy woote dialogue parce que ku jiite réew je crois que amoo benn intérêt réew moomu ñuy jàppante di tojantey bopp li la war mooy a chaque fois que nga am possibilité ne nit ñi ne ñëw jaloge ñu dialogué mais dama ne li am solo ci Sénégal fi mu toll nii mooy bu ñu dee jaloge jéen ci lan la ñuy dialogué li ñu war a dialogué lu yomb la mooy président Macky Sall dañoo jëm ci élection présidentielle yoo xam ne mi ngi war a am le 24 février élection yooyu ñu ne le président Macky Sall waru cee bokk loolu lañu wax moom ci boppam. mu taxaw ne élection yooyu waru cee bokk parce que moom moo verrouillé la constitution du Sénégal donc soo woowee nit ñi ne leen nañu ñëw ñu jaloge ci crois que la première chose bi ñu war a waxtaane ñoom mooy suñu demee jaloge ce sera pour faire quoi moo tax bi ma déggee ñi nga xam ne ñoo ne ci opposition bi ñu ne ñoom li ñu bëgg a dialoguer mooy benn le président de la république wax ne la mu waxoon moom lay continuer di wax maanaam mënul bokk ci élection yi ñu ne très bien ñu ne la deuxième chose mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ñu ne ci kaso bi actuellement te ñu tuddee ay détenus politiques ñu ne nañ leen bàyyi ñoom ñëpp ñu ñibbi seen kër mais yooyu jar naa dialoguer te réew am na ku ko wax keroog ne même le les les plus grands nu ñu koy wax sax les les plus grande guerres ci àdduna bi yëpp fi mu mujjee mooy toog waxtaane ko. donc yooyu également suñu mënee dem ba toog waxtaanee ko man dama naan dara nekku ci mais l' essentiel l' essentiel mooy jàmmi Sénégal nan la ñuy def pour dem euh, à des élections yoo xam ne nit ñi dañ ciy dem ci jàmm ak salaam c' est le plus important. ñu jeexal ko kon ak euh, Idrissa Seck ak président Macky Sall li tax euh, ñu bëgg cee taxaw rapidement ci lu gàtt gàtt mooy Idrissa Seck dafa annoncé ne day démissionner. Euh, ci euh, con euh, nu ñu conseil économique social et environnemental CES. alors bi mu ko annoncé li nga jàpp mooy moom moo jël initiative bi moo tax ñu bari naan way ci mbirum dil la nekk ak moom ak le président de la république patati patata mais del xool mbir yi ni mu demee quand Idrissa Seck annonce que ni moom dafa jëm ci comment est-ce qu'on appelle ça day démissionner le lundi ak les membres de son gouvernement. bi mu ko annoncé à 16h à 17h le président de la République était sur les zones de la RFM lan la wax daf ne Idrissa Seck wax ne ko ne ko moom dafa bëgg a nekk candidat moom président de la République moom moo ne ko comme dangay nekk candidat dangay génn bennoo donc l'initiative de la rupture vient de Macky Sall et non de Idrissa Seck contrairement à ce que Idrissa Seck a dit beneen bi mooy quand Idrissa Seck dit damay comment est-ce ça dafay euh, dafay. Euh, Euh, les ministres de son gouvernement dañuy les ministres ba Diattara ak ab ak Salé bokk ci gouvernement bu Macky Sall ñoom dañuy démissionné mais boo xoolee mbir yi ni mu demee mooy président Macky Sall ci boobu moo jël initiative ne limogé na leen c'est différent moo limogé Idrissa Seck remplacé ko par Abdoulaye Daouda Diallo limogé ba Diattara ak Abdallah Salé ça veut dire quoi que ni xëy na ñoom ñaar su fekkee ne dañoo ne ci ab deal ni ñu ko ni ko ñu bari bëgg a waxee les termes du deal dafa mel ne man sama bopp clairul trop trop trop trop trop et loolu xam naa euh, dans les prochet jours incha allahu rabbi dinañ ci ñëwaat waxtaan ci euh, lu yaato yaatu en tout cas ñi ngi jaajëfal ñëpp di leen gërëm ci ànd bi di leen ñaanal jàmm ak salaam ngeen ñaanal tamit jàmm ak salaam encore une fois li perturber un peu suñu suñu waxtaan mooy le message <laughs> que je viens de de recevoir euh, prévoir uma woon wax ci yu mel noonu mais incha allahu rabbi euh, dans les semaine qui viennent su fekkee ne yàlla defal nañu jàmm ak salaam dinañ ñëwaat fii waxtaanaat ak yéen ci yéen actualité réew mi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen ñi ñu doon seetaan di gërëm Fatou ak Diène